dox rek dox rek ak fi réew mi toll. tey eh, taxawal. yow yaa rek moo jëm jox saa per taxawal. per taxawal ah waaye yéen waay doom waay doom déet waay. ah waay waay waay doom déet waay. indi nga ay pet waa dara. indi li nga ak fi ma dimbali rek. am indi lépp laa ah waaye yéen indi lépp ak fi réew indi lépp per am seel